sa démb xam xam sa démb xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ku jara waxtaanee di waxtaanee mbegum senegal mbegum nit ku ñuul di Cheikh Ahmad Bamba di mbégum lislaam di mbégum diine di mbegum ku gëm yàlla. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke gane si àdduna 1853 ca Mbacke Bawol di woon dëkk boo xam ne ma nga ca diggu Jolof ak Bawol ak Kajoor te maamaatam maamaaram Mbacke sancoon ko moom nag mooy ñeenteelu doom ci baayam ci Zahir Maam seli Anta di ñaareelu doom ci Zahir ca ndeyam ji sel ja soxna Jaara Buso ñu naan ko laa wala jaaro Buso bi ma amee juróom-ñaari at Cheikh Ahmadou Bamba lañ ko yóbbu ca nijaayam Mamadou Bousso ca Jolof ngir mu dalal ko alxuraan waaye nag mi ngi mottali am njàngam dem ca maamam jooju ci wàllu ndeyam di tafsir Mbàkke Ndumbe nga xam ne nee nañ nijaay soxna Jaara Bousso la kooku nag moom la toog ca moom ba fend cim njàng waaye nag baax gu ko yàlla baaxe xam-xam ak xel moo tax ginnaaw bi mu génnee àdduna daanaka mokkal na alxuraan mu góorgóorlu nag ci coobareem ak ndimbalal yàlla ba mottali am njàngam tafsir nu ba génnee àdduna mu dem Saalum fekk fa njaboot gi muy ay mbokkam nga xam ne almaami Maba Jaxu Ba ñoo leen fa tegoon fekk fa Lat Joor Samba Tukulóor Ka di it mbokkam ndax mbokku Mamour Anta Sali la moom moo taxoon mu gën a gëstu gën a gestu gën a bàyyi xel gën a mokkal yi nga xam ne mooy làkku araab la koy dëxëñ ak la koy nëbb muy grammaire ak yu mel ca noona waaye nag ca la gën a xereñ ci lii di wéetal sa bopp ci yàlla nga xam ne da ko nampoon ñu nampatal ko ci dooree ko ca ndeyam ji sell ja di soxna bu soo bi mu ñëwaatee kajoor nag ca la gën a jege nag xaalima jaxate kala nga xam ne ko wala réew waajuram bu góor la woon kooka nag lii di taalif moo ko ci gën a xereñ loo 1870 Maam Mor Anta Sali nekk xaadi Lat Joor def ko ko ginnaaw bi Maba Jaxu noppaloo te Lat Joor nekkaat damelu Kajoor Ahmadou Mbacké mi nga xam ne dafa desoon Saalum ngir mottali ay gëstoom akum njàngam daal leen di fekk boobam ma ngay am lu tolloog ñaar fukki at lañu wax ca Pataar ca biir Kajoor di jàppale waajuram nag ci téewinu daara ji doxalin ji ak njàng mi waaye taxut mu jaxasoo ak nguur àdduna bi nga xam ne Maam rant Sali génn àdduna 1882 Cheikh Ahmadou Bamba ne moom nanguwut xaadi bi ko bëgg a def ndax soxlawu ko ne nag ñi nga xam ne njàng dong leen fi téye mën na noo dem wéyale ko fu ñu bëgg waaye ku bëgg jàng te ñu tarbiya moom mën ngaa toog ginnaaw loolu nag mu jël daara ja ca Mbàkke Kajoor dénk ko Cheikh Abdourahmane Lo ca la tukki nag tukki juróom-ñetti weer diggante senegal dëkk yu bari ak Mauritanie ba mu demee Ndar Haj kamara nga xam ne moo fa toogaloon diwaan bii di diwaanu Sidiya ci xaadirewu senegal moo ko def muqaddamu xaadir ba mu demee gànnaar fala la dajeeg Cheikh Sidiya Baba nga xam ne xalif la woon tukki booba moo tax mu def fa gëstu yu rëy yoo xam ne lépp luy wéetal yàlla ak xam-xamu baatin fa la ko amee waaye bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor nag ne nag jël na yoon bu bees woo xam ne fa lay am njàngaleem jëm te noonu nag la wax ne jot naa ndigal ci sunu boroom yóbbu nit ñi ci yàlla mu kawe bi gën a lépp ñi nga xam ne bëgg nanoo ànd ak man ci yoon woowu nanu ñëw ñu dem waaye képp koo xam ne am njàng dong moo la soxal réew mi bari na boroom xam-xam yi kenn ku ne na dem ca koko doy ñi bëgg a jàng nag te ñu tarbiya leen nañ fi des keroog la yoonu muridiya ubbiku jamono jooja am ku koy wër ku tudd Cheikh Ibra Fall yàlla wan ko leer ga mu agsi nag daal di gis këm doon wër mu war a doon nag ab sëriñam Cheikh Ibra Fall dajeeg Cheikh Bamba Cheikh Bamba ànd ak ñi nga xam ne nangu nan de Mbàkke Bawol toog fa 1884 foofa nag am ñoo xam ne nee nañ Cheikh Bamba day bi yeesal te yeesal gi muy yeesal ñoom nanguwun ko loola tax Cheikh Bamba dandu dem ñaari kilomètre samp fa Daaru Salaam foofa la ko Lat fekk bi amee jafe-jafe tubaab bi ne ko na ko dimbale ci ngànnaay ngir mu mën a xeex cheikh bi ne ko bàyyil xeex bi te dellu ci yàlla ginnaaw nag Lat Joor ba mu fa jógee ne ko munta bañ a dem dëkkale la des ak ñooñam waaye ña des ca xare ba te deewuñu dañoo dellusi ci sëñ bi jébbalu ci moom. bi taalibe yi gënee bari nag Cheikh Ahmadou Bamba danduwaat ñeenti kilomètres sori Daaru Salaam samp fa beneen dëkk noonu la Touba juddoo 1888 waaye Touba googa sëriñ bi lii la ci wax mu tedd mi. nee na defuma ko ngir donn sama maam defuma ko ngir wut fu mën a bayee ma am fam koom defuma ko ngir wut fu ma mën a sàmmee ay nag waaye dama ko wut ngir rek jaamu yàlla te nag dama ko am ci yàlla mi kenn ndigalam ak it am ci ñaanam kon nag sëriñ Touba mooma loola tax Touba nekk dëkk bu mag bi mu ne bi Touba bëree nit. cheikh bi daal di koy dénk ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom daal di dem 1895 Mbàkke Jolof nga xam ne mat na juróom fukki kilomètre ak Touba. booba nag buur ba Jolof Sàmba be moom bëgg na sëriñ gi bëgg goo xam ne neexut ñëpp mu am ñu bon ñoo xam ne ña ngay wër naan sëriñ bi day jiyaat dem nag ba nga xam ne tubaab bi def na ko noonu ndax ragal na sëñ Touba. jël yoon wi Samori jëloon ak Amadou Cheikhou ak Maba Diakhou Ba ca noona ñu daal di woo cheikh bi ca kër gouverneur daal di koy jàpp 1895 di fukki fan ci weeru août ca jeewal waaye booba bi tubaab bi ñëw jóg na dajeeg ñoom daal di koy yóbbu ndar ah bi nga xamee ne nag wër nan wër-wër ba sonn xamul nun koy def tubaab bi gëstu ba sonn ne kii daal nanu ko tëj te nanu fexe ba bu askan wi jóg dal sunu kaw kon le 5 septembre lañ jël dogal ne Cheikh Ahmadou Bamba danañ ko génnee réew mi loola nag moom moo indi ñi nga xam ne dañ ko jël yóbbu ko Congo français mi ngi ko dugg ci bato bi nag mi ngi ci dugg le 21 septembre 1895 am na nag fu bëri fu mu jaar muy Conakry muy Grand Bassam muy Cotonou ca benee am na lu ne def nañ ko ko natt bu ne teg nañ ko ko ndëgg sërëx gu ne ñu teg waaye sëñ bi moom fa ne woon jógu fa bi bata bi accès Libreville ñu tuddee ko Ndumbarwali Sëriñ Tubaa ñu yóbbu ko ca camp militaire bu tudd Ludima yóbbu ko ca beneen bu tudd Seet Kama jaar na sax Port-Gentil ñu daal di koy yóbbu ca ndar ga nga xam ne mooy Mayombe nga xam ne ndox ko wër mu def fa juróomi at ak lu topp ci li ñu nettali daa di ñëw Lambaréné nga xam ne fa la ko maam Cheikh Anta Mbacke fekk ak sëriñ mooduloo Lo Dagana waaye fu mu dem teg nañ koy nattu xiifal ak lor di ko jéem a wàññi ak wàññi ngëmam muy yokk rek. Serigne Bamba fépp koo xam ne tëj nañ ko def ko kaso wël bëndi ko def ko jullikaay ak jaamukaayu yàlla ba nga xam ne am na fa ndam yu kenn mënta naatable waaye Serigne Bamba lim bind yéeme na bëri na bëri gox. kenn mënut xam nu mu toll. juróom-ñaari at ginnaaw ak lu ëpp ñu teg ko tëj ko bi ko nguurug tubaab bi indiwaatee mu jógee Gabon Serigne Bamba wàcc 11 novembre ca Dakar fukki fan ñeent la ca teg tukki waaye nag mbooloo mu rëyee ko dalal ca Ndar ca Louga ca Bari Jàmm ca Sanusi ca Mbàkke Kajoor ca Daaru Salaam Serigne Bamba daat na nag sëriñ bi ma leen indi la xéewal yi ma wuti woon am naa ko xasida yi ma bind a ngi nii amatuma noon baal naa ñépp loola nag taxut sax tubaab bi noppaloog moom ndax 14 juin 1903 la ñu dem ca Daaru Marnaan jàppati waaye bàyyiwaat ko ginnaaw bi buur Sine Kumba Ndoofeen ak mbaaxu yàlla seede moom Fandeb ca kanamu gouverneur ne bàyyi leen Serigne Touba jaamurub yàlla la ñaara weer lañ ca teg tubaab bi amul jàmm xelam dalut mu daal di koy déporté yóbbu ko gànnaar yóbbu ko ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax Sarsara di Sawdalme ñeente at lañ ca teg ñu ne ko na ñibbi si Sénégal daal di koy yóbbu résidence surveillée ci Thiéyène mu def fa ay at ñu daal di koy yóbbu Diourbel résidence surveillée bi nga xamee ne nag seetlu nañ ne taalibe yi bëri nañ fekk ko Thiéyène 1913 mu daal di sanc kër gu mag muy kër gi nga xam ne mooy kër gu sell gi tubaab bi amul jàmm waaye xam na ne sëñ bi bis bu ne ak leeram di yokk aw turam di yokk ndamam di yokk mu ne kon na dugg ci lii di comité consultatif bi nga xam ne mooy gérer li tubaab tuddee les affaires musulmanes Cheikh Ahmadou Bamba 1918 la door jumaay Jurbel tubaab bi nag jaaxle lool waaye mu leer ko ne kii nguuruk àdduna ñoru ko te liñ ko tegoon lépp dara du ci dëgg tubaab bi di jéem a baalu noona nag gouverneuru Ndar ca la ko joxee 1919 diplôme ak croix biñ tuddee chevalier de la légion d'honneur sëriñ bi ne jox leen ma diplôme bi ma téye waaye croix bi bàyyee naa leen ko 1921 mu daad ne dama bëgg a delloo yàlla njukkal ci dem bi nga xam ne demoon naa ko gàddaay ca Gabon waaye nag ca sëriñ Touba am ndam lii mu wax ci Assirou ginnaaw nag bi nga xamee ne 1925 jot na jumaay Jurbel ji noppi muy taax moo xam ne moo gënoon rëy ci taaxu soowu jant di taax mu njëkk moo xam ne doomu nit ko ñuul ci xaalisu boppam kopparu boppam ak liggéeyu boppam moo ko defar ci jamonoy tubaab yi muy mbégum nit ko ñuul sëriñ Touba kon sagal na nit ku ñuul ci jumaa jooju muy taax mi gën a rëy ci Afrique sow jant ci jamono jooja ñaari yoon la fa julli iit korite ak tabaski 1926 la jot ndigal ci tubaab bi ngir defar jumaay Touba Cheikh Ahmadou Bamba nag nanu jàpp ne wuy ji na boroomam guddig fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ci weeru sulet ci 1927 jumaay Touba jooja 1930 lañ ko door ay jumaay Touba tey mooy barab bi ñëpp jëm ay millions ngi nit di wuy sëriñ Touba këri Serigne Touba yi fépp ci àdduna daara yi fépp ci àdduna liggéeyu njabootam ak i ak i taalibeem wane nan ne ku ne ci dëgg te ànd ak yàlla da nga am ndam sëriñ tuuba mooy ndamul nit ku ñuul. xam sa démb sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may. ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut